Est-ce que Idrissa Seck sera candidat à l'élection présidentielle de 2024 est-ce que réponse bi mën naa nekk question ni ma ko sentir dama koy def question soog laa tontu lu simple est que yow mi laaj mën ngaa xalaat élection présidentielle nekk Sénégal egsi Idrissa Seck di dund dese bakkan am wér ak cawarte te du ca bokk xalaat nga loolu wala xalaatoo ah xalaatoo ko de est-ce que xam nga kenn ku mën a xalaat loolu kenn rek ku ko mën a xalaat waaw léegi nag réponse bi gën a gàtt mooy waaw